asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi nekk ci Sénégal ak bitim réew àddina warngal kàpp ñoo ngi leen di nuyu li tax ma waxee nii nag damay waxatu ci cadre Urasul Irada damay wax ci cadre Sénégal pour tout court euh, dafa am waajoo xam ne dafa war a dem fan ñu faj ko bu fekkee dafa dof Euh, bu fekkee du ab dof ay mbokkam ñu woo ko waxal ko ne bala ngaa waxati ci dara nanga ko xam euh, bàyyi leen dugg ci loo xam ne xamu leen ci dara di wax lépp li ngeen wax dara du ci dëgg xam nga man man mu mer a ba saagaat wala mu wax lu ñaaw mais du lu dul dëgg du du dëgg wala tax fu maa laysa laka bi ilmun loo xamut bu ko wax bàyyi leen dugg ci domaine yoo xam ne xamu leen nu mu demee di ko wax loolu gis nga gàcceel sa bopp la ak ñàkk jom ak ñàkk xam sa bopp ak ñàkk xam li la war waa jii di wax ci titre foncier Touba dafa mer ba day funkat not ki sax mënu ko ngir mel yow lan la suñ Touba def lan la la def c'est pas la fin du monde ñaati titre foncier ñoo fi nekk hôtel yi sali yi ay titre foncier la club aljanna dañ fay futti ay jigéen titre foncier la fii ñu wax ne ci la ci la ci la euh, benn bàyyi boy woykatu rapport da koy tabax ci gënnaa mbuur dañoo am ba am seen xaalisu bopp am seen gendarme ak seen police bopp am seen lépp bopp titre foncier la lan moo tax sa xol bi mënu mënu ta galaase ci titre foncier boo xam ne ay jullit ñoo ko moom seet yàlla waa ji nee na titre foncier Touba bi ay tappale la nee na titre foncier Touba bi eh, tubaab yi ñoo sàcc suufu Sénégal jox ko murid yi moom xam na Sénégal fan la déparé ak fan la yem Sénégal mi ngi dàmbalee tindiw ci Algérie boole Mauritanie ak Mali ak Sénégal ak Gambie ak Guinée Bissau ak Guinée Sékou Touré loolu mooy siin gaanata loolu mooy siin gaana siin gaana te jooju moo indi baatu Sénégal du ko tubaab bi daggatee ba eggal lañ def tur bi ñun ñoo am droit ne fii ba tundu ci suñ dëkk la bokk ñoo am droit ne Mali ak ak ak Mauritanie ak Gambie ak Guinée Bissau ak Guinée Sénégal suñ dëkk la bokk. Guinée am nañ droit ci ne ñun kenn duñu tàggalee waa Sénégal ndax ñoo bokkoon suuf Mali sañ nañ ko Mauritanie sañ nañ ko. Gambie mi ngi ci biir Guinée Bissau sañ nañ ko loolu moo di siin gaana siin gaana googu nga xam ne siin mooy li féete eh, dexu ndar gi jëm jëm sow Ghana te mooy li féete dexu ndar gi jëm penku ñaari place yooyu la ñu boole woon ci jamono ju njëkk eh, di tuddee ko siin gaana lii ma lay wax maa ngi la koy wax ñi ngi ko def ci 34 ans avant juddu yonent yàlla Isaa ibnu Mariama 34 ans avant juddu yonent yàlla Isaa ibnu Mariama siin gaana am na nun am nañu gis nga tubaab yi nga ñuy wax ak mille six cent mille nangam nangam ñun ba ñuy am suñuy at boobu tubaab bi ñëw ñëwagoon Afrique ñun ba ñuy am suñu date de naissance boobu yonent yàlla Isa ibn Maryam dafa juddu ñun ba ñuy am suñu date de naissance boobu yonent yàlla Muhammad dafa juddu booba gàddaay sax defu ko bu ñu delloo mbir mi ci démb ñun dañuy dem ak suñu bopp ñun trente quatre ans avant Jésus-Christ booba lañ sosoon Sénégal léegi da ngay jël deux mille vingt et vingt et un plus trente quatre égale combien trente plus vingt égale combien égale cinquante plus quatre égal cinquante quatre plus un égale cinq ñaata la deux mille cinquante quatre ans la Sénégal am deux mille cinquante quatre ans moom la Sénégal am boo ci boolee at mi jeexagul muy deux mille cinquante cinq ans ñun doo ñu jaay affaire histoire kooku moom du sa wàll xamoo ci dara ku tuuti nga ci bëgg a wax ay mille neuf cent ay mille dama leen ne deux cinquante cinq ans la la Sénégal am deux mille cinquante cinq boobu yonent Yàlla Isaa dafa juddu booba date yi ngay wax yi dafa am loolu mooy siin gaana laam do Maodo doomi boy li moo fi njëkk a jiite ginnaaw ba Yàlla Muusaa labale na bañ tas nguurug faraayina yi suñu maam yi tasaaroo booba la booba ak léegi dem na ci ñetti junni at ak ñeenti téeméer ak lu topp ñun bi ñuy sos Sénégal ak léegi ñaari junni at la ak juróom fukki at ak juróom booba lañ sos empire di gana mais ñun bi ñuy ñëw fii di dëkk ci tasaaroo bi bi mu amee ginnaaw bi Égypte tasee ca jamono yonent yàlla Moussa ñu tasaaroo ñëw fii jaare ko boobu Soudan ci Égypte la bokk génne Soudan tas ñëw fii ak léegi ñetti junni at la ak ñeenti téeméeri at ak lu topp boobu fan la tubaab bi nekk fan la tubaab bi nekk boobu temps boobu tubaab bi fii bi ñi fusionné Siin ak Gaana def ko Siin Gaanata Siin Gaanata mooy Sénégal loolu may naa la ko xamoo ko ci histoire bi léegi nag ma ñëw ak yow ci li nga wax ne tubaab bi dafa sàcc suufu Sénégal may ko ñi sant Mbàkke bi muy sàcc suuf si ci ñan la ko sàcc xam nga ci ñan la sàcc yoon suuf si bi mu koy may <laughs> sa waay man bu ma sàccee bu ma sàccee sa alal delloo la ko dama la koo may wala da nga nangu innama sadaqatu lil fuqarai wal masakini wabna sabili wal amilina alayha wal muallafatu qulubuhum lu ca topp wa fi riqaabi wa fi sabilillahi wabni sabil riqaab mooy lan riqaab mooy ku ñu jàpp njaam nga jot ko yonent bi bi mu fi nekk ak saaba yi xeex daana am ñu jàpp jullit njaam ñu jot ko mais suufu Touba suñ alal la woon ju moom ñu jot ko mais dañ ko moomoon avant maanaam bu te ni tubaab bi daf koy sàcceen ci ay bambara wala ay portugais wala ay ñeneen gën a nax mais ñi titre foncier bi tubaab bi ñëw dafa fekkoon ñoo moom Touba yonent bi nee na man ahya mawaatan fa yalahu yonent bi nee na al ardu lillahi wali man ahya a ah, du dégg naa ngay wax ngay wax ci sharia al ardu lillahi wa liman ahyaa man ahyaa arda tuuba xam nga ko ba tubaab bi dikkagul ku goroon àll boobu xam nga kan la loolu de mi ngi am ca jamono ji fi tafsir Masamba Caam di nekk Caameen Jolof loolu mi ngi am ca jamono jafi Amari Ngoone Ndeela Faal di moom Kajoor Amari Ngoone Ndeela Faal moomu moomoon Kajoor te dogaloon maam Maaram Mbàkke suuf si ma ñuqu ñuqu faam mi ko jur ma nga dëkk faam Kolda ca Guinée Bissau c'est un dafa ñëw fii rek mais ab étranger la mais booba temps ci siin gaana lañ nekk territoire bi yëpp benn la woon mais ki mayee àll Touba sax bu njëkk muy Amari Ngoone Ndeela mi ko may maam Maaram Mbàkke maamam ji sañ ci eh, Paleen Dëdd Guinée Bissau la dëkk dëkkul Sénégal ñun xam nañ naka la ay soose lañu duñu ay wolof dinaa la jox te histoire bu leer nañ Amari Ngoone la bi nga xamee ne euh, rey na reylu na ku ñuy wax Mame Lamine Sarr mooy maami wàccaareen jama te maam Lamine Sarr ak maam Maram Mbacke ak maam maam Leykan ñoo doon jàngandoo ci maam Tafsir Sam Masamba Thiam maami Iyane Thiam ca Thiamène Jolof ba ñu réyee maam Lamine Sarr maam Maram Mbacke dafa ñëwoon jaale si ko jóge Jolof ñëw Kajoor fekk na booba dongo yi daara yi ñoo ngi yëngatu ndax ñun dañ doon bañ ñu nekk ñu woon ay jaam comme yow ak ñi nga àndal di daw ci ginnaaw tubaab bi di daw ci ginnaaw gouvernement laïcité bëgg saxal loo xam ne booba maamaati maamaati maamaati maamaati tubaab bi ñëwagul Afrique sakkantuma di dikk Sénégal mille sept cent mille mille six cent mille sept cent la fi ñëw xam nga amul ngoone Ndeela Faal ban ban année la fi nekkoon xam nga ko war ngaa xam ban la fi jamono la fi nekkoon Damel Sukaabe Ngóole Jéy moom moo fa daje ak jamono ji fi portugais yi day ñëw Amari Ngoone Ndeela moo tiim kooku noonu ci ay at Amari Ngoone Ndeela Faal Kajoor dafa amoon bu dee xamuloo dafa amoon Kajoor am Bawal am siim am Saalum am Bajara am Fuuta Tooro am Waalo am jolof am njàmbur lébu gi ci kajoor la bokkoon Lat Joor Ngoone Latir Jóob moo tuddi géejaway googu géejaway ba mu joteeg lébu yi dawalu pasam ba ne suus ci géej googu def ni fii day géejawaay boo déggee jox puuti Malikumba Jaar yi puut gii ngay gis Malikumba Jaar yi nijaay Lat Joor moo fi nekkoon comme ab gouverneur yow xamoo dara doo doon noppi tu comprends rien al jahlu asad du minal kufr law sakatal jaa'ilu maxtalafa naasu ñun bi ñuy moom suuf si booba maam yi tubaab bi dañoo juddu ba di ñu ko may eh, naka laati maa ngi ne jàkk ci turam waay ku mer du xamati li muy wax yal yàlla musal lu ci mer doomi sëñ Abdourahmane Mbacke ji nekk tey fii ci sa ci ci ci sa ci Somone eh, di di sëtëb sëñ Mandoumbe Xabaan eh, ay maamam de dëkkoon nañ foofu ci Mbacke Bawol waaye boobu àll boobu ngay wax ne dañ ñu cee may dañ koo sàcc may nu ci biñ koy sàcc ci ñun lañ ko sàcce woon boo xamul ma xamal la àll boobu ñu ngi ko doon wax ñarax laan daanañ ko wax àllu mbaafaar gi daanañ ko wax it ñarax diggante kajoor ak bawal la nekkoon ci moomeelu kajoor sax la bokkoon waaye moomalewuñ ko woon damel teeñ euh, maanaam teeñ ñoxo koddu bi muy xeex ak damel Lat Joor Ngoone Latir Jóob ñi ngi doon xeexe ci xur woowu ci boor yi fi ñuy wax coosi kër maam Alioune Cissé mbanaar ya ñuy suul suñu maam ya ba léegi ma soo dikkee ma duggale ci sama oto ba dem ñu taxaw ma ne la fii moo fii la Touba yem pour nga xam fan la Touba yem Touba yëg séegul yem Touba mi ngi yem ci mbanaar yi ci kër maam Alioune Cissé gi ci coose maam Alioune Cissé maamam soose bu jóge woon ci bitim réew la guerre boobu ba mu amee ci diggante damel la Lat Joor Ngoone Latir Jóob ak teen ña ko kold ba guerre ba jeex mag ñi ñoo daje ne dañoo bëgg jàmm am ci réew mi te xeex dootu fi amati léegi ñu dem jëli ñu jëli way way juru maam Alioune Cissé coose moomu maamam lañ jëli indi mu ne man de li ma man lenn la su ngeen ma dëkkalee fii ma di fi jaamu yàlla de xeex dootu fi am diggante kër maam Alioune Cissé gi ak mbanaar soixante mètres wala wala cent mètres ci la yem ca la guerre ba jeexe foofa foofu kër maam Aliou Cissé gi nekk foofu la àll tubaab bi yem bi la jor jógee Kajoor war a daje kenn ña koddu te jaar ci suufus mbaafaar gi dafa wax ni suuf si sañu ñu fee xeex ndax suufus maam Maaram Mbakke la ñu dox ba jeexal suuf si bañ ni fii la ngat wi yem ñu taxaw foofu lañ doon xeexee mooy tool ba ñu doon xeexe xarab Sambe yow tii ne pas comprendre rien yow tu n'es pas un yow bokkoo ci réew mi xamoo dara doo doo africain doo sénégalais ñuy wax ngay waxi tubaab yi wax sa tubaabu njalla yi lan la la tekki yow doomu Sénégal xamoo Sénégal naka la tëddee yow xamoo ci mbir mi dara doo noppi ci sa lamañ nga nga naj ko ah law sakatal jaayi lu maxtalafa naasu teñ maanaam maanaam mëriñ gone ndee la faal mam maaram da koo jaale si woon ku mu ko jaalisi woon mi ngi ko jaalisi woon Mame Lamine Sarr ca bañ ko reyee Amari Ngoone Ndeela dafa tiit ba bàyyi pay ba daw dem nëbbutu ji ci kër Mame Tafsir e, ni ñu koy waxee ti e, ki sant Faal paaleen ji ci pir kër Mame Tafsir Xaadi Amar Faal fa daw nëbbutu ji fa ngir bëgg a mucc fa ko maam maaram fekkoon di ko jaal te booba moo moom moo moo moo moomoon ngat woowu yëpp ba mu ko ne maaram su ma sañoon dëkk ak yow daf ko ne man du ma dëkk ci suuf su mas a am boroom du ma dëkk ci suuf suñu mas a tuuree dareti gor suuf su kenn mus ta moom lañ may jox ma doo fa dëkk mu ne ko kon danaa la jox ñaraxlaan ñaraxlaan mooy fan ñaraxlaan mooy foofu Touba nekk tey ñu jox ko ñaraxlaan mu ñëw gor fi dëkk fii maam Maram Mbakke moo jur maam Abibulaay Balla ay Aysa mam Abibulaay Balla Aysa moo jur Mamour Anta Sali Mamour Anta Sali muy waajuru Serigne Touba Serigne Touba jàkkaarloo woon ak tubaab bi tubaab bi jóg nekk fi ba Serigne Touba jóge fi sama safaa ñëw dikk laaj la ay maamam moomoon ba ba kenn moomagul dara ñu nangu woon ko ci doole mu jot ko ci dërëm yow xamoo tus ba tusee booloo jee lan ngay wax te xamoo dara boo xamul doon noppi waaye dimbale leen ni waaye yéen da ngeen a soof te wax waxam lu bon waxal lu dul dëgg xam nga wax loo xam ne dara du ci dëgg xamoo ci dara ngay logg loggal aw làmmiñ seekase siise laase siise di ay kàcc yi dara du ci dëgg li nga wax ni dara amu ci tubaab bi dafa sàcc suufu Sénégal may ko mbaa Mbàkke mais waa Sénégal biñ fi nekkee gox bu nekk ak ña ko moom fiñ may waa Mbàkke ñu ko moomu bi tubaab bi ñëwagul ñu duñu sant Mbàkke nga moom man ma moom sama yëf nga ñëw nangu ko ci doole ma jot ko ci alal nga delloo ma ko doomu kuttu mbaa sant dugg ci àll ba ñu naan li li dama koy tiitaroo cent pour cent ndax ñëpp a amoon ñu nangu alal yi ñëpp waa kër suñ tubaab ñëw nanguwaat seen alal ci seen dërëm delloo ko dañ koy bàkkoo ah. comme naqari nga dugg ci géej gi mbaa nga matt sa bakkan wala nga gas si dugg ci mbaa nga utub esal nga dem asamaan mais Touba Mbàkke rek ku mu neex Mbàkke lay sant comme naqari Mbàkke lay sant ku ci Sénégal comme naqari deewal kenn forcé wala Vatican du nga fee ca Italie ñan ñoo ko moom dul waa waa Vatican nan la Vatican doone bala bala dan aaminan makkatal mukarrama maam ibrahim sañcal ko soxnaam mu nekk baladan aminan tuba mam mam Amadou Farimatam baayam sañcal ko ko mu dëkk fekk doomam du nekk baladan aminan baladan aminan ku mu neex ku mu naqari ku mu xarta gat ku mu ngundaa njaay baladan aminan kenn mënu ci tous du président du du France du keneen loolu dañ ko ba mu leer lu njëkk na booba ñu juddu te ñun juddu nañ xam nañ qu'est-ce qui bu ngeen deete wax leen lu ngeen xam ku waxul li nga xam nga noppi law sakatal jaa'ilu maxtalafa naas dégg naa ngay wax ne waaw waaw nit ki boo ko jaay seetaan waaw nga jaay ko suuf bi ah, nga jaay ko suuf si boo ko jaay fa jaay kër Touba amul génn kër gu ñu fay jaay man nga faa nag suuf nit ñëw nga jaay ko ko yow mi ko doon ñaan clandestinement mais doo am këyit mukk kenn du la délibéré aw këyit Touba moom dëkk mbaa dem benn kàddoo fay dox dëkk mbaa dem waaw ku sa maam bokkoon ci liggéey booba nag nga suppi sa loxo dem ut say bandi yoo xam ne wax kàtti lu dul dëgg kese lañ li ñuy wax dara wóorul leen ci kenn bi ci wax loo xam bu la neexee nga nekk ci ay internet di tarar yi li ngay wax dara du ci dëgg daara bi ci dëgg d'accord naa ci titre foncier quatre cent hectares d'accord naa ci titre foncier quatre yi nga wax yëpp d'accord naa ci mais man dama laa mag mag sa titre foncier mag tubaab bi fi indi titre foncier ñun dañoo moomoon suuf si moomu titre foncier amu fi li nga moomoon ca jamono ja lislaam di maye man ahyaa mawaatan fa yàlla u ku gor ak ngoree fut yaa moom waa Mbàkke gor nañu ngoree fut moom al ardu lillahi man liman ahyaa foo taxaw yàllaa ko moom waaye ku fu fu kenn musta dal ku fa dal yaa ko moom bu dee gëm nga yonent bi loolu yonent bi wax fu kenn musta dal ku fa dal yaa ko moom fa ma mbaaram dal kenn musu faa dal mu dal fa moom ko man ahyaa ma ma waatan fa elo tubaab bi dikk not ñépp notaale ñu d'accord mais ñu am possibilité yëkkati alal fay jot li ñu moom dañoo jot suñu alal tubaab bi dafa siifu sàccut yow li nga xamoo ci dara tubaab bi sàcc ku ci kan lay sàcc suuf si waa Mbàkke moom ko bu koy sàcc ku mu koy sàcc waaye sàcc ko ci waa Mbàkke delloo ko waa Mbàkke nga daan war a ngeen kooga sa wax war a ngeen kooga sa wax ndax suuf si Sénégal ko ban Sénégal moo ko moom ban Sénégal ko moom ban Sénégal moom suuf si bu ko Sénégal moomee xanaa Sénégal du mbott yeeg mbëtt yi ak xar yeeg béyeeg nag yi du Sénégal yi nit yi la nit yi ñoo di Sénégal ba ñu nekkee Sénégal ba léegi gox bu nekk ña ko goroon moom ko mu di seenu ngat ñoo ko moom tubaab gor ko moom ko muy seenu ngat tubaab bi nangu fépp nanguwaale ko ñu laaj ko ñu delloo leen ko ñu fay alal jël seen yëpp danaan dañ koo sàcc bëgg naa na nga wax ma bëgg naa nga wax ma bi tubaab bi di sàcc suuf sos ci Touba te di ko sàcc ci Sénégal ci moomee la la ko sàcce woon dangaa xam dara tubaab bi daa ma sa sàcc lenn tubaab bi mu a sàcc lenn am na yu bëri yoo xam ne da ngeen koy wax rek pour tàll taal musiba waaye c'est pas la peine ñu di ci tontu li waa ji wax nii ay feni neeni neeni neen dara du ci dëgg dëgg la titre foncier bi dëgg la mais moomeel gi daa jiitu titre foncier bi Touba ba ko waa Touba di moom Touba daal di Afrique bay moom suuf waaw nit ki nga fekk ci suufi maamam mu gor ko moom ko nga jaay ko doole nangu ko mu wël wëlbatiku jël alalam jotaat ko ci yow nga delloo ko ko ñu toog bañ am indépendant ñu ne kenn waaw bu yow yaa wax ne bu indépendant amee kenn ku nekk nañ la delloo la nga moomoon d'accord indépendant am na kenn ku nekk nañ ko delloo la la mu moomoon mam maarama goroon àllub ñarax laan ba ko kenn moomagul ca jamono yi Omari Ngoone la delloo nañ ko ay sëtam ngay daal ngay mbelli mbelli lan ngay wax yow da ngaa xam tus ci li ngay wax mais c'est pas la léegi mu ni yow lii waa ji di wax moom lay tëj wax ñoom li ñuy xeex yéen mënu leen ci dara gouvernement bi mënu ci dara kenn mënu ci tus tubaab mag gouvernement bi tubaab mag tubaab bi fi indi woon gouvernement bi loolu ngeen di xam domaine national kañ la xew xam nga domaine national kañ la xew yow juddu woo xam naa ne sa làmmeñ woowu ku la gis xam ne juddu woo ndax boo juddu woon yàgg di nga xam domaine national kañ la xew domaine national bi muy xew Senghor def tappale yoo xam ne nit mus ta def tappale yu ni toll Senghor bi mu naree def domaine national dafa wax mbokki séeréeram yi ne képp ku amoon tool te may ko jàmbur nangul sa tool gaa yi nawet booba ñu nangu seen tool yi maye woon yépp ay bokkam te déwén sa mu bàyyi ba ba ba ba nawet ca déwén sa mu def domaine national ne léegi fu ba fu waay dayoon daaw yaa ko moom suuf si gën a maa koy joxe ku nekk la nga yoroon moom nga ko waa léegi ba tey ku nekk la nga yoroon moom nga ko moo domaine national lu wax lu tax waa Touba du ñu du ñu du ñu moom lañ yoroon ñoom yow jàngoo dara ci wàllu àddina diine ji ngay jiima jàng sax xamoo ci dara xamoo réew mi naka la tëddee doo dem laaj ñu xam ñu wax la domaine national mooy lan domaine national mooy alal ji dellu ci xeet wi suuf si nation bi moom ko ndax suuf si bu ko nation bi moomee te gouvernement wate domaine national ki bokk ci nation bi amoon suuf ba nas ba gouvernement bi amagul mu amoon suuf suuf sa jugul ci loxo mu dëkk fa ba domaine national fekk ko fa ñu ne nation bee moom suuf si nga bokk ci nation bi te moomoon suuf si amaa domaine bi domaine bi dañëw toxal toxal la fi nga nekk te doo fi jigi lu tax Senghor ne ku fu fu fu fu fu waaye béyoon daaw yaa ko moom waaw fu fu waaye dem béyoon daaw yaa ko moom mooy domaine national waaw fu waaye dëkkoon jëtti téeméeri at ba maami Senghor juddoogul nag te toxuwu la dama ne dëkk leen tuuba te ànd ci li waa Touba wax Touba wootuñu kéefër wootuñu bokkaale wootuñu mooy yàlla jaamu yàlla la ñuy woote dégg naa nga naan ku fa neex tux yàmba kal moo ne Touba ku fa neex tux fa yàmba bu dee ku fa neex tux yàmba demal nga tuxi ko fa da xam naa boo demee muccoo ci demal Touba nga tux fa yàmba seet kon di nga xam ndax Touba ku fa neex tux yàmbaam déet bala laa la sant du ma jàpp sëñ Modou Lo Ngabou dina la wul lii ba nga ne waali mu door laa joxe Touba ña fay régler seen i ya ña nga fa di ko régler te nag te dana gën a soppeeku sax mënu leen ci dara dara dara dara waj alxarimana ariman amina ku mën a dëkk dëkk ku mënta dëkk nga jël say bagage te dem foofu ormay Sëriñ Bamba la di war may waa Mbàkke di war may murit yépp fu neex waaye nag dëkk ci Sénégal boo dee murit waaye kat fu murit amee lu ko naqari ñibbi Tuubaa bu demee ne yàmbalang fàngalang kenn du ko ne deel ñu julli la loolu mooy dagg seen xol te dana leen rey dara ngeen ci mënul tus li ñuy dàqe mus mënu leen ko ci amul wenn lay wu ngeen mën a indi nag ba du àll boobu waa Mbàkke ñoo ko moom ñañ ko séq ñëpp benn bopp lañu ñu génn këti xeeti daal ñoo ca bokk ci duggee yi dem càng fële te bokkoon ngeen yaakaar na nag ñu bokkoon ci biir te génn ci dem càng fële parte la yi ngeen mën a jaar pour dugg ci biir dañu leen daan sëq boole ko ak yéen ne leen xëpp ci biti wala ñu dellu ci liñ bëgg Touba lislaam a fay dox leneen du fa dox Touba kilifteef moo fay dox leneen du fa dox ku bëgg dëkk xëyrum ku bëgg dem sa yoon kuñ ilif sa maam ilif sa maam yi maam buñ la iliful mu nuy wàññi waaye nag buñ la mënut ilif fa ñu sañ a ilifee nga nga defa lañ tracé doo ca jaar da nga ñu awal loolu moom amul ma sàmba amul ma dembe kenn mënu ci tus asalaamaaleykum wa rahmatullah